léegi bi mu yeggee ndigal li fi des gi rek a bisis màggal gu mag gaa ngi màggal gi nag dafa lamboo dëkk beeg ko wër ak fépp fu jullikat ne yaatalam gaa ngi màggal gi nag dafa lamboo dëkk beeg ko wër ak fépp fu jullikat ne yaatalam gaa ngi Europe Asie Amérique Afrique fu nit mën a ne nay jàng téere bi ak addis ndigal laa ngi sëñ Bamba nag fab xasaayid yëpp daal dina xëñ addis yi ak téere bi yombal la mbir maa ngi jëlal xasaayid yi yow loo man durus dangaam yoolub ku wàcce limub kaamil lu wér laa ngi koo xam ne nag alxuraanam kat da koo jafe lool laay wax ki man alxuraan nay boole ñaar yaa ngi sëriñ bi wax na ko am yoolub addis am yoolub xuraan ak bu màggal wétt waa ngi yii yëpp nag benn boo am rek rek la wax ko alxuraan faat sikar faat ko dab gaa ngi màggal gi ngay dabe mboolim yi wa gaay amoon tem raw la yow mi nga doon dab jiitu muur maa ngi kon nag ku am yoolub màggal gii lu mat ati at ëtt ba sëñ bamba ne ngay ne lu doon laa ngi jataayu sëñ bamba bee muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew màggal si njëg gaa ngi ku la teew na nga jël aslëf te def ca ba tey bu yéene sellee nga feeñal yéene jëf jaa ngi loo def ci màggal bi sëñ bàmbaa ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu laa ngi ganaar ba jàpp gëléem dërëm ba ci miliyaar loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaangi nun gaa yi dëkk ak Serigne ci biir dëkk bi lan saar yi kat yóbbul lenn muñ gaa ngi yonen bakat fu mu geesoo gis sëriñ bi mu teew fi ak wetam gaa yi yonnen baa ngi gaa yaa ngi sëñ bambakat nee na doo gis kenn man ko ci too loob yàlla bi alxuraan jëwrin jumat jaa ngi sëñ bambakat nee na doo gis kenn man ko ci too lub yàlla bi alxuraan jëwrin jumat jaa ngi lan lansaari mooy nun ñi am fii kër te gan ñi di ñëw yonen ba wax na lu wér ci gan addis baa ngi man kaana yoominu kon gan ñi na leen di teral yonen ba lii lanu wax toppal ndigal laa ngi nan wàcc sun lal yi jox leen toggi ñam joxe xiif di kaf di reer delli moo gën berne mbig maa ngi nan wàcc sun lal yi jox leen togg ñam joxe xiif di kaf di ree beli moo gën berne mbig maa ngi waykat ba nee na lu gan gi maanu maanu du tee buy dem di nettali lam ges moytu xas waa ngi nëbbal sa jikko te jikko yiw te nëbbu sa mer bu mar te bu mer te it nay maare yoon waa ngi saggan ba saggan déwén buy del si waat xalaat dalaat sa kër te ne tuuba lu ñaaw laa ngi sagan bu yegsee ne moom daa sonn na ko wutal fu yaa mu soonu fa yow féexal ko ndam laa ngi buy lekk it bu ko boole jëmm yooyu xamu leen bu dee borom kersa day ru suur te lor jaa ngi bul gëdde bul xasse bul dóor donte day gone sax ki teewu gan gi da koy rëdd noo lu ñaaw laa ngi sàggan ba sàggan déwén buy del siwaat du xalaat dalaat sa kër te nga ne tuubaa lu ñaaw laa ngi sëriñ bi baaxe la may la kër gu yaa ne fayax mu am ganam ñii bu leen mer loo lu sew laa ngi yow gan gi nag bul nekk gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tàkk nga koy ñaan paas lu soof laa ngi yeneen bayit dafa wax ne addiyaafatu nag salaasatun ñetti fan mooy ngan waxam jaa ngi sëriñ bi fàggu na laajul kenn lu mu bëgg am waaye di jox nit na doon lu man digal laa ngi ku dal ci kër gu ne war naa fonk kër ga mu dal ngir picc sax car ba muy dal naw ko roy gaa ngi liggéey bu dee jot nga ànd ak ñoom liggéey la nga man sa wërsëgit bu ko génnee kër ga xel maa ngi liggéey bu jotee nga ànd ak ñoom liggéey la nga man sa wërsëgit bu ko génnee kër ga xel maa ngi saaboo sangoo génn duy say poos mu fees nga ne fes boo del si waate di laaj reer gàtt xel gaa ngi siyaare war na la kenn néewul bu leen ko defit ndegam da ngay joxe dal bii waat ko soof gaa ngi kii teeru am na lu war kañ teeru am lu ko war ku wàcc war war ya def nas njombe war gaa ngi ñëwal bi di tax teerul te bi di tax kon ñaari tax yi bu ciy toj sooxe ñaax gaa ngi gan ñëpp yàlla nañu am màggal te dëkk yaam ñu bég nu bég sëñ bi bég maa ngi gan ñëpp yàlla nañu am màggal te dëkk